Thiass gannaaw maa ngi lay ziar. maa ngi ziar bu baax. maa ngi lay la. Aly Niang. Aly Aly Niang. waaw tey ngeen am bis boo leen dëgmal di def open press waaw mën nga xam nan ngeen waajalee bis bi. waaw ñun moom ñu ngi koy waaj ni ñu ko war a waajee rek. bis bi moom jaral nañu lu nekk nag. parce que ñu ngi entraîné ni ñu war a entraîné gis nga boo xoolee saawaay rek nga xam ne mu ngi ci forme bu baax ñu wax dëgg yàlla waaj nañ ko ni ñu ko war a waajee jox nañ bis bi tamit cëram wax dëgg yàlla saawaay comme ni ma la waxee rek boo ko xoolee nga xam ne mu ngi ci forme te suñu adversaire bu ñu ko jàppee dinañ xam ne lépp dëgg la waaw ah, mais ñu gis ne aussi gëñ na bëri est ce que loolu tamit du waral bu ñëwee mu xaw a perte repère non non moom wax dëgg yàlla gëñ na ci arène bi tamit boo xoolee ay sept ans yooyu ba gëñ na ci arène bi mais à chaque fois day dem entraînement day dem day def contact day ànd ak gaayam yi loolu moom wax dëgg yàlla du ci dara yaakaar naa loolu côté boobu moom suñu xel daal na ci moom daal pare ngeen ci côté yëpp pare nañ ci côté yëpp côté musique côté physique côté yëpp daal pare nañ ci ñu lay sant bu baax tur bi nan la Carlo di la Baye Fall bi tey ñu gis ngeen amal open press seen mbër war a bëree ci weekend bi nan ngeen waajalee bis bi. non bis moom waajee nañ ko nu ne. waaw ku xool mbër xam ne mbër instant yi pare na fépp. waaw le 22 moom du yomb quoi parce que Cheikh pare nañ fépp daal ndax boo xoolee mbooloo mi nii xam ne maanaam li leen yëkkati xam nañ seen mbër bu baax kon Assane fi mu ne nii ndam rek la ñuy gis moom. waaw loolu la demee quoi. waaw mais ñu gis ni gëj naa bëree est tamit loolu war mënu ko andil ay gàllankoor. non mais tey la waalo gën a ay barke maam Cheikh Rafal beneen gisaat ci làmb waaw beneen cas la ñuy gisaat ndax cas mi ku ko xool xam ni maanam cas mu njëkk ba ak cas léegi bi am na différence pare nañ fépp daal mbay mi na am na problème quoi mën nañ jàpp ne retour koy marqué ah retour mën nañ jàpp ne ngeen koy marqué non retour bi day am ndam barke Serigne Touba am na ndam ba pare fi mu ne nii gars yi fi bi nii mais am na ndam ba pare loolu lu leer naa ñu la waaw ma lay sant bu baax di la waaw jaajëf waa kër Assane Dias ah bis mom ñu ngi koy waaj bu baax ñu ngi naan yalla yalla may ñu ci ndam seddu guuy ndax seen mom sama papa la ñu ngi ñaanal la ndam seddu guuy na as waaw gëj bëre mom amu ay ko na ni boy bëre da ngay xaar tamit tek ci loolu ci baax wa ha ah? paré nañ ci côté yépp paré nañ ci arrêt paré nañ ci fi yëpp waaw ñu nekk ak le grand champion boña école de lutte balagay boña Boy ñu ngi lay ziar waaw maa ngi lay fay di la ziar. lan su ma rakk moo xew la tey Assane Thiass ñoo dendee benn kër suñ kër a nii seen kër a ngi na su ma rakk la su ma rakk ji yaru la wax dëgg yàlla gëjoon nag si làmb quoi war a ñëw am lu mu wane quoi. mais nan gisee état de forme am tey. dafa liggéey booy bi dafa liggéey dafa toog at boo xamante ni xam nga daf ko entraîné quoi booy moom fi mu tooy nii pare na quoi man si sama gis ah. pare na parce sama durant sama combat yëpp mi ngi doon ànd ak ñun di dem diin di di dem entraînement dem contact. mais comme ni ko waxee léegi toog na an bëriwul. waaw mais boo dee contact chaque jour rek xam nga moo gëj a bëre bi du si doon dara quoi boo dee compétir du doon dara mais mi ngi compétir mi ngi ñëw di entraîner. muy bëre ko am tan booy bi moom kenn amul lu mu koy wax parce que ñun bi ñu nekk si bi ñuy xale boobu mi ngi nekk booy bi ndaw di fooy bëre quoi kon ñun amuñu luñ koy wax quoi na entraîné na góorgóorlu xam lamb ji lu mu laaj mu def ko. sa xel dal na ci moom. waaw si moom quoi. waaw maa ngi nuyu waa dama demoon Dakar maa ngi nuyu waa Dakar di nuyu ñëpp quoi waaw sanq bi nga may woo dama sonnoon moo tax quoi. waaw ñu ngi lay ziar doom yaay. nga am combat capital war a bëre altine bi ñu dëgmal sa diggante ak Pape Guy gi ci ban état d'esprit nga toll. waaw combat bi nekk na combat boo xamante combat bu ñor. waaw maa ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur. waaw di sant waa Gunaas nag. waaw man Gunaas laa am. fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee ba toll nii. kon lépp lu ma am Gunaas la. waaw di sant nag sama gaa yëpp di sant suñu waa kër maa ngi sant sama yaay bu baax baax ak sama papa wa di sante sama jabaru mag yep wa di sante sama mag yep ñep japp na ci combat bi wa ñu ci ciy sonn guddeeg bëccëg nak wa di sante mafia Kara bi nak wa per Kara ñu koy sante bu baax ndax tay li bu amé mom la wa di sante sama gaay yep nek Ikri walo ak kep ku fi tew rek ma ngi lay sante di la gërëm ñu gis ni également tonga at bëréwo te olof nee na béykat du gëj tol tubab daani incompatibilité bu yagge day andi lan ngay tontu ci lolu wa lepp rek nekkon suñu rukk rek wa di liggéey loolu kese la waaw am nañ ci luñ jógee nag mais loolu waa passé na instant bi li nekk ci suñ kanam la ñuy xool waa combat bi nag nekk na combat boo xam te ñor na ma trop te bëgg naa képp ku yeewoo gunaas rek nga ñëw jàppale cas ci combat bi. ngay bëri adversaire boo xamante ni mbot mooy forum est-ce que boobu liggéey nga ci aussi. waaw côté boobu maa ngi ciy liggéey. waa ku mel ne ay màjj màjj ay màgget sekk ay ñoom vie ko ne jooni ay ñoom caat bu waalo waaw ñoom côté boobu kooku mënul bëree waaw ku ci mel ne ay Alioune kooku mënul. bëre ba dàq bëre ay ñoom caat ay ñoom majj majj ak ñoom vieux koné kon kooku ay ñoom maca kon kooku jooyu ma loolu man kooku lu mu ñëw rek da ko fiy fekk man pare naa yàlla rek moo des te maa ngi ñaan yàlla nag yàlla defal ma ndam lu sedd buy bu amul benn werante nga war a def sa retour du point de vue la mobilisation lan ngay waajal waaw mobilisation bi moom waaw lépp rek waaw maa ngi koy teg sama gars yi tamit sama gaa yi nga xam te ne maa ngi ñoom ñooy ànd dipp mbapat ba léegi nii waaw ñoom jàpp ñi ngi may jàppale bépp côté waaw seetaanuñ ma ñu ngi may jàppale bu baax a baax waaw mobilisation bi nag waa soxla naa ko damaa bëgg nag waa Gunaas ñëpp génn jàppale seen doom Assane Thiass waaw bis bii nekk na nag bis bu ma ñor lépp lu ma waay di dimbalee rek na ma ñëw na ma ko ñëw dimbalee ci bis bii ndax man bis bii daf maa ñor man kii retour la Assane la te amul sax lu ma ciy maye lamb ji gis nga bu laajee bakkan bi dama ko fay teg man lamb ji ndam rek moo ma ci arrangé maa ngi koy ñaan yàlla te bëgg naa nag waa Gunaas ñoo may dooleel na waa Gunaas génn bu ñu génnee barki Serigne Babacar si bu ma demee stade bu at bi sifflé bakkan bi laa fay teg bu ma gëstoo waa gis waa Gunaas daf may rey ñu andi victoire yóbbu néew. waaw combat bi nag maa ngi ciy woo ñëpp nag waa Gunaas nag ñëpp ñëw génn jàpp ci. kon mën nañ jàpp ni pare nga pour marquer ce retour. waaw retour bi moom waaw waaw pare naa waa pare naa ndax entraînement yi ndax tey maa ngi entraîné ay séances yoo xamante nii man gëj naa ko def ku ci mel ne waaw 6 mois ma koy ànd cat bu mu ma yóbbu diin ci wàllum pël di ma entraîné ak ñoom màjj màjj ak mafia kara bi kon kooku yaakaar naan bu parewul léegi xaw ma kañ lay pare kon instant bi combat bi yàlla rek moo ci des maa ngi ñaan nag yàlla mi nga xam te ne mooy maye ndam di joxe lépp maa ngi ñaan bis ba mu may ma ndam ci kaw Pape Guy gi. ayca santal nga gërëm. waaw waaw di sant tamit waaw balaa ma wax dara damay sant abu waaw abu miy jaay café ci télé bi maa ngi koy sant bu baax waaw ndax jàpp na ci combat bi tamit heure bu ma jigee entraînement moo may jox ma ndékk naa ma mbër jàppal lii génneel lii defal lii di jox xaalisam kon abu dama koy ñaanal yàlla waxuma la kantinu café de mais ay néegu kafe sax dina ko am waa usine kafe ci kàttanu yàlla ñu ngi koy ñaanal abu am ko fii ci télé bi ci kàttanu yàlla bu sooba yàlla waa di bëggee nag waa gaa yëpp nag tuti ay ñoom ngoma waa monsieur le maire tamit maa ngi koy woo ci combat bi ak Fouta ak suñu yaay kii tamit maire Kina Fall tamit ñu ngi koy woo waa di woo Maman tamit ci combat bi na ñëpp ñëw xam nga jàppale ma ci combat bi ku ci mel ni àndaw àndaw tamit jàpp na ci combat bi bu baax a baax waaw andaw dugal na ci loxoom leneen ak leneen du lépp sax la ñuy wax andaw moom dama koy sant di ko gërëm bu baax di ko wax combat bi tamit waa ndam rek incha allah waaw di sant tamit waa banlieue sok monsieur le maire tamit maa ngi bëgg xam nga mu maye kaari yi fii Medina Gounass waa gaa yëpp génn ay ñoom fuuta na ñoo jàpp ci combat bi xam nga génneel ma kaari gaa yi dem waaw maa ngi sant tamit waa gétt gi ku ci mel ni ñoom Aliou Ndaw gaa yi ñoom Ibou Feeraay waa gaa yëpp jàpp na ci tamit ñoom nañ génn xam nga jàpp ci combat bi waaw maa ngi woo ñëpp nag ak sama seex tamit jàpp na ci combat bi waaw waa Baxdaad waa Gunaas waa ñett mbaar waa lycée Limamou Laye waa xam nga waa banlieue Sock xam nga ñëpp maa ngi sant tamit jigéen ñi teew fii ñëpp ku ci mel ni tamit dem Demba moom it day sonn ci man jàpp na ci combat bi waaw maa ngi sant ñëpp di sant Baye waaw Baye sama copain waa di sant waa Waal daan tamit di sant gaa ñëpp daal maa ngi woo ñëpp daal képp kuy supporter Thiès rek waaw na ñëw xam nga fii jàppale Thiès ci combat bi waaw